الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موكي إن شاء الله دي سي سانتا من أك يو أك كيب كو خمتنا يانج ديك دو فيديو بي دي سي سانتا نيب دي نيو فيك جي كو سوف مانام فيك 2123 باسكو إنسان يي نيونغ 2023 فيك 2123 إن شاء الله دي نيو فيك جي كو سوف نيب دي نيو فيك سونيو بير بامين ñu nag suñuy doom yi ñu nag suñuy waajur ñu nag suñuy xarit suñuy am di jàmm ñun ñëpp fii ak cent ans fekk suul nañu ci biir ci biir suuf kër yuñ fi nar a bàyyi incha allah yeneen nit ñoo ñu nar a donn yeneen nit ñoo nar a dëkk ci biir kër yooyu noonu bërëbu liggéeyukaay yi yeneen nit ñoo ñu fa nar a remplacer suñu alal biñ fi bàyyi yeneen nit ñoo ko nar a donn te tey tey nit ñooñu duñu sax dañ dañuy fàtte parce que day fekk ñoom tamit toll nañ ci seen jamono dañu war dund seen dund dañu war a liggéey dañu war a accomplir seen mission fii ci kaw suuf du coup ils seront tellement occupés que dañuy fàtte ana kan si ñun mooy toog ba fàttaliku maamaati maamam sa maam bi nga xam ne gaañu na il y a cent ans danga koy fàtte doo toog sa ba sa xel dem si moom donc xamal ni yow tam sa tour dina ñëw incha allah bés dina nga jóge fi. Eh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo remplacer ñoo la remplacer dëkk ci sa kër yi dañ lay faté duñ la fàttaliku kon ba taxna na bul nangu kenn ku dox sa ak jaamu yalla bul nangu kenn ku dox sa ak sa borom parce que aduna bi fi laps de temps rek nga fi am da ngay ñëw nga dem bo bés bo fi juggé sa tour dañ koy faté sa apparence lepp dañ koy faté bañ na ba nit ki su déwé lu ñu ñëk wax moy lan dañuy faté turam neew bi lañ koy woowee ana néew bi ana koor bi bu ñuy waxtaan ba xel dem ci sax lu ñuy wax ndem si yalla sax fatte nañ sa turu sa apparence bi nga nekk di soigner di ci def lu nekk di prendre soin de ton apparence dañ koy fatte kon bul nangu ko dox sa digganteeg jaamu yalla parce que jibril alayhi salam, da ñëw si yonente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko conseil yu crucial conseil yu précieux conseil yo ne sha allah jibril dafa ñëw na yonent bi ishma shita fa innaka mayit wax bib man shita fa innaka mufariq jibril dafa ñëw na yonent bi dundal num la neexee bés dina ñëw nga di bëggal kula la neex ci kaw suuf bés dina ñëw nga tàkkalikoog moom te loolu ak ay dëgg conseil bi du nit moko du jinne moko jibril malaka yalla, mo jël conseil bi jox ko yonent bi sallallahu alayhi Wasallam. ne ko bëggal kula la ci adina dina ñëw nga tàkkalikoog mom te lool dëgg la sa jëkkër bi nga bëgg di nga tàkkaliko moom tôt ou tard sa jabar di nga tàkkaliko moom tôt ou tard sa yaay daf la bëgg nga bëgg ko di ngeen sa papa di ngeen tàkkalikoo say mag say rak di nga ak ñoom say xarit say am di jàmm di nga ak ñoom mu yéex mu gaaw kon bul nangu ñoo ñoo ñi ma lim ni ñep bul nangu kenn ci ñoom ku dox sa ak jaamu yàlla bul nangu kenn ci ñoom ku dox sa ak sa borom parce que bés dina ñëw nga ak ñoom kon donc xamal objectif bi la indi ci kaw suuf nga focus ci objectif boobu parce que yàlla dafa ne wa maa xalaqtul jinn wal ins illa li yabudun binduma jinni ak nit lu dul ngir ñu jaamu ma illa la yàlla wax nee na lu dul ngir ngeen jaamu ma du coup ñun yàlla binduñu lu dul ngir ñu jaamu ko nekk àdduna bi suñu objectif nekkul lekk nekkul naan nekkul liggéey nekkul jàng nekkul fecc nekkul woy nekkul ambiance nekkul football nekkul làmb déedéet suñu objectif mooy jaamu yàlla moo tax ci loolu la ñu war a concentré wu te moytu képp koo xamante ne nii dafay jéem a détourner suñu attention ci loolu waaw ndax ñooñu ñëpp bés dina ñëw nga tàkkalikook moom comme ni ko Jibril waxee bés dina ñëw di nga tàkkalikook ñooñu kon lan moo war a tax nga jël sa temps yëpp di ko di ko passé ci doomu aadama yooyu di sóoraale ñoom seen gis-gis ci yow di sóoraale ñoom seen seen seen jugement ci yow parce que dangay gis nit ragal ragal jugement doomu aadama yi moo tax du sax mën a pratiquer diine wam comme il sa faut am na jigéen yoo xamante ne nanguwuñu muuru parce que dañuy ragal seen société dañuy ragal seen environnement dañuy ragal seen entourage gis-gis bu ñuy am ci ñoom bu ñu muuroo Sénégal moo nekk réew boo xamante ne boo jéemee jug di góorgóorlu pour jaamu yàlla day am nit yo xamanteni dafa melni iblis mo len di posséder dañu commencé di la kañu commencé di la décourager commencé di la togn di la rétan nan la wayo mu xana da ngay waja a ah lan mo xew ba nga jaamu yalla comme si kuy waja dé dee kese moo jaamu yalla da ngay gis goor soko né li sunna la yonentib ni la dan solo wala yonentib da dan yar sikim bu xalaté ni bës bu yaré sikim wa koñ bi dinañ commencé di ko tuddu di ko joxoñ rek fay ragal bu ko defee yow doto sax mëna conformé wu à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ngir lan ngir ragal jugement doomu aadama doomu aadama yoo xamante ne da ngay ñoom da ngay dee léegi-léegi ñu fàtte la xool tey Sénégal lan moo fa am nit su deewee ah dëj lañ koy organiser dëj bu rëy woo ñëpp ñëw ñu togg ceebu yàpp yu saf ceebu yàpp yu amul fenn ñu lekk ba suur lekk ci nàkk yi toog ca dëj ba di ko jëw waaw ca dëj ba la ñuy toog di la jow nit yooyu nga xamante ne ñoom ñoo doxoon sa diggante ak jaamu yàlla ñoom nga daan sóoraale ba lu bëri nangoo ko nanguwoo ko def di bàyyi xel regaaru nit ñi di bàyyi xel xalaatu nit ñi boo deewee sa dëj la ñuy ñëw lekk ceeb ya lekk nàkka ya naan ci boisson bi sekkeratu waaw da ci gis koo xamante ne sax xoolal ca dëj ba lay toog di lekk ceeb di laaj kaani naan ana soosu kaani bi mu leer la ni la ñuy dara safu leen kon bul perte sa temps ngir ñooñu bul topp ñooñu bul nangu ñooñu dox sa diggante ak yàlla donc li conseil bu may jox sama bop diko jox sama mbokku julli yëpp benen bi moy keur yi ni nga xamantene tay ji motax ñuy ray suñu bop di daw guddek beccëk ci alalu aduna di daw guddek beccëk suba ngoon dañuy dawa dawa dawa dawa dawa daw daw am na ñoo xamante seen vie routine la yew dem liggéey 8 heures de temps ñibisi si nelaw yeewuwaat liggéeyaat huit heures de temps ñibbi si tëdd nelaw yeewuwaat liggéeyaat huit heures de temps ñibbi si tëdd nelaw jàpp ne loolu vie la alors que loolu du vie loolu système la boo xamante ne ni dañ la ko imposer système de vie la bu ñu la imposer loolu noonu du vie pour lan parce que dañ ñoo gëmloo tekki tekki tekki tekki tekki tekki tekki ñun ñëpp alors que li nga xamante ne mooy tekki au vrai sens du mot ñun xamuñu ko parce que ñun Sénégal nu ñu définiree tekki mooy am kër am oto tukki génn Sénégal dem France wala Amérique ñu ne moom de tekki na yaa ngi dégg am xaalis ñëw jox sa yaay mun ne sama doom bi tekki na commencé di la ñaanal yoonam nekkul sax si fan nga jëlee xaalis bi waa nit ñoom nañ la gis tabax nga kër aji nga màkk yóbbu nga sa yaay màkk jënd nga oto commencé nga liggéey ñu ne tekki na loolu du tekki de tekki dëgg dëgg dëgg dëgg tekki dëgg dëgg mooy mucc ci safara tàbbi aljana loolu mooy tekki voilà mais lu ñu gëm loo tekki loolu jege na tekki loolu loolu sori na tekki loolu du tekki parce que lu ñu tuddee tekki yëpp matériel la boo xoolee lépp matériel la ñun matériel mooy tekki suñu matériel mooy tekki oto bu cher kër bu rafet étage bu ñu tabax bu mu rafet ba kawe ñu ne tekki na xaalis ñu ne tekki na waaw ñun ay bien matériel loolu lañ jàppee tekki alors que loolu noonu du tekki tekki mooy tegu ci yoonu siraatul mustaqim bañ cee wàcc mooy ci ba dee fekk la ci nga dekki yàlla dekkil la noonu musul ci safara tabil la aljana parce que yow doomu aadama da nga am benen vie éternelle bu lay xaar moy la vie après la mort te vie bobu non vie bu sax la vie bu éternelle la jarta wéccok dara jarta wéccok aduna bi nga xamantene en une fraction de seconde da fay disparaître dafay jeex moo tax yàlla ne innaha ulaa yuhibbuuna al ajila wa yazaruuna waraahum yawman saqila moy doomu aadama yi nga xamanteni ni dañoo bëgg adina bi jiital adina bi jiital adina bi dañoo fàtte sax bés bu dis bés bu tar bés bu metti bés bu jéggi dayo moy lan moy bésu yawmal qiyam te bés bo xamanteni moy rendez-vous bi nga xam kenn du ko la yalla di dajale ñepp koy fekke kon donc lool nonu dañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax parce que li ni yépp ma lim fi ak 100 ans du amati ben sens alal be keur yeeg njabot kek jëkkër yi jabar yi oto yi loolu yëpp du amati benn sens parce que suñu dund ci kaw suuf comme kii la dafa gaaw dund bu éphémère la dund bu gaaw la dund bu vite fait la te ñun dañ fiy jóge ñeneen ñëwaat waaw dañ fi génération bi daf fi jóge beneen génération ñëwaat nekkaat ci leneen waaw drapeau yi ñu yore dañ koy paasaat ñeneen beneen génération bii nii di ñëw waaw balaa ngay réaliser say rêve sax yow day fekk dee nga ñi dee ñëpp dañu amoon projet ñi dee ñëpp dañu amoon projet waaw ñi dee ñëpp ku ci nekk am na loo doon projeté mais malaaka bi moom xamul ay kii daa amoon projet wala kii daa lii dafa bàyyi njaboot ak déedéet malaaka bi xamul loolu malaaka bi doxeewul loolu malaaka bi ndigal la xam ko yàlla ne demal nga jël ji ruu maaxadi day ñëw jël sama ruu fu ma mënti fekk moom yoonam nekku si day ñëw jël sama ruu dem yoonam yoonam nekku si maaxadi dafa bàyyi njaboot ak yaayam moom kese la am ak dafa bàyyi doom ak yoonam newu ci loolu malaaka bi day ñëw jël sama bakkan dem yoonam parce que ñoom du ñu moy seen ndigalu borom te suñu dund fii ci kaw suuf dañ ko nar a rendre compte yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa am na quatre questions yoo xamante ne doomu aadama bi du si échappé quatre questions yoo xamante ne yàlla dinañu ko laaj yàlla dinañu laaj suñu dund ci lan lañ ko passé suñu jeunesse ci lan lañ ko passé naka lañ amee alal ba ñu amee alal naka lañ ko doon dépensé donc quatre questions yooyu noonu yoboo nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax baax te ñu jox valeur temps bi nga xamante ne moom la ñu yàlla jox suñu temps dañ ko war a fonk jox ko valeur bañ ko perte ci loo xamante ne nii amul njëriñ bul topp waykat yi fecckat yi footballeur yi mbëru làmb yi ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp jouékat série film yi ñoom ñëpp laa la wax nag ñëpp bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp ku ci nekk da nga taxaw temb di xëccal iblis ay nit yu koy wettali safara te yéen xamoo leen ko ñenn ñi dañ koy def conscienment ñenn ñi dañ koy def inconsciemment parce que yàlla ne wamaa xalaqtul jinna wal insa illa li yaqbudun bindu ma nit nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma yow nga jël sa àdduna yow yow nit jël benn objectif maanaam muy foo wala football wala fecc wala way nga jël loolu noonu def ko métier di ci woo ay nit fan nga leen jëme fudul safara safara kese nga leen di jëme amoo fenn foo leen di jëme fudul safara kon bul jël sa temps di ko investir ci ñooñu bul jël sa temps mukk di ko jox nit yu mel noonu ndax suñu dund dund bu gàtt la mais nag iblis daf ñuy gëmloo ko suñu dund dafa gudd saa boo bëggee jug bëgg def dara mu naan la noo am nga temps da ngay gis koo xamante ni dafay bëgg changer dafay bëgg tuub mais seytaane dafay nekk di ko was-was nar ko noo xale nga looy daw bay daanu am nga temps xaaral tuuti dugg na fi génn fa di xalaat doolu ba de fekk la ci li nga nekk waliyaazu billah waliyaazu billah na yàlla musal ñu ci tey di képp ku dugg bàmmeel tu vas te rendre compte à quel point la vie d'ici-bas était si futile bés boo deewee ba dugg bàmmeel si ngay xam ne nekkati àdduna bi du woon dara dara dara dara dara parce que yow bés boo waree dee ba malaaka bi la war a jël sa ruu tu vas voir ta vie défiler sous tes yeux comme ça da ngay gis sa vie di défiler wu ni comme film bés bu malaaka bi ne bëreet sa kanam war a jël sa bakkan da ngay gis nii yow sa dund commencé di défiler wu nii comme film dootoo comprendre ci dara mais c'est trop tard jeex na da nga war a dem. temps bi nga fi amoon jeex na da nga war a dem mënatoo ci dara kon bul jël sa temps du ko perte ci ay foo ak ay caaxaan waaw ndax boo duggee bàmmeel di nga xam ne ndekete reeve yu ma amoon fii ci àdduna di bëgg di am ay bëgg-bëgg am ay bëgg di nga xam ne loolu def c'était absurde lu tax c'était absurde mooy que bàmmeel dara du la fa topp dul say jëf yu baax ak yu bon mu neex la mu naqari la say jëf yu baax ak yu bon ñoom ngay àndal sa biir bàmmeel say jëf rek nga dul tàqalikool à say jëf ñëpp ngay tàqalikool à part say jëf da ngay tàqalikook ñëpp say jëf kese ñoo lay topp ba yow mal xiyaam say jëf ñoo lay topp ba yàlla di la jox sa téere ak sa loxo ndeyjoor wala ak sa loxo càmmooñ say jëf nga fay fekk waaw ñun ñëpp bu ñu sañoon bu ñu demee ba yow mal xiyaam ibbi suñuy téere jëf kontaan fekk ñu bindal ñu fa suñuy woor suñuy julli suñuy jaamu yàlla suñuy jëf yu baax kenn suñu buggul tiim sa téere jëf yow mal xiyaam ñu naan ko soirée làmb football sàngara njaaloo jigéen non kenn suñu bëggul loolu ku sañoon boo tiimee sa téere jëf ay jëf yu baax kese nga ci fekk loolu nag da nga ko war a liggéey depuis léegi on ne récolte ko ce que l'on a boo bëggee fekk sa téere jëf ay jëf yu baax léegi léegi nga koy liggéey nga muñ nga takk sa bakkan nga détourné wu ci lépp loo xamante ne nii caaxaan la lépp loo xamante ne nii du jaamu yàlla détourné ci sa attention parce que amalu la njariñ parce que tu cours à ta perte sans le savoir kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax te xam ne àdduna bi yàggul Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla def ko yónni pour mu indi diine bi ci ñun lépp loo xamante ne war nañ ko jaamoo yàlla moom yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal nañu ko alhamdulilah kon lan moo la war nga gëstu yonent bi jàngaleem lan moo la war nga gëstu alxuraanu yàlla bi jural alxuraan nga def ko sa vi parce que yàlla daf ciy wax ak yow nga yow soo bëggee wax ak yow da ngay dem soo bëggee wax ak yàlla da nga julli nit ki bu buy julli mi ngi yàlla mais soo bëggee yàlla wax ak yow ibbil téereem bi lépp lu war a xew ëllëg yàlla nettali na la ko ci téereem bi lépp la xewoon démb yàlla nettali na ko ci ci téereem bi lii di xew actuellement sax alxuraan bàyyiw ko waaw ndax bu ñu duggee bàmmeel rek on va on va tous se rendre compte que ni ndekete ay jëf yu baax kese moo amoon solo nee naa leen yowmal qiyaam bésu rëccu la bés la boo xamante ne yow mi defoon lu baax di nga rëcc yow mi defoon lu bon di nga rëcc parce que ba yowmal qiyaam ba gis situation bi nu mu taree di nga ne non su xamoon ndekete li ma doon def lu baax ma gënoon ko yokk bépp seconde bépp tiers bépp minute bépp heure bépp jour bépp weer bépp at boo xamante ne passé nga ko si lu ñàkk fayda yowmal qiyaam di nga ko rëccu yàlla njàll musal su loolu yàlla na yàlla musal si dem ba yowmal qiyaam di yuuxu di rëccu waaw kon nañu passé suñu vie ci jëf lu baax ci def ay jaar jaariya sadaqatu yoo xamante ne nii daf ñuy fekk si ba suñu biir bàmmeel waaw am na ñoo xam ne nag yowmal qiyaam dañoo nar yuuxu dañoo nar yuuxu dañoo yuuxu parce que dañoo nar a rendre compte que ni dañoo nar a rendre compte que ni nekkate seen vie yëpp ci ay foo lañ ko passé woon comme ni ko yàlla waxee yàlla suñu borom subhanahu wa taala wax nañu suratul muminun entre verset 99 ak verset 100 yàlla mu ne qaala rabbir ji'uun la an lii amalu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraihim barsaxun ila yawmi yub'asuun yàlla mu ne am na ci nit ñi ñoo xamante ne bu leen dee dikkalee dañuy yuuxu naa ay yàlla delloo ma ci àdduna ndax ma commencé waa def lu baax yàlla mu ne yàlla mu ne non ñi dañuy wax nii rek waaw wax la boo xamante ne nii dañ koy wax nii rek waaye nag am na maanaam barrage bi nga xamante ne moo nekk entre ñun ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen bàmmeel kon donc nañu bàyyi xel te ñaan yàlla mu muccal ñu ci ñi nga xamante ne dañoo nar a dem ba yowmal xiyaam bi yuuxu yàlla buñ ci bokk yàlla na yàlla musal ñu ci ñi nga xam ne dañoo nar a dem ba yowmal qiyaam di yuuxu yàlla nañ ci yàlla musal wala ci ni nga xamante ne dee da leen di dikkal ñu commencé di regretter di yuuxu yàlla nañu yàlla may mujj bu rafet ñaan yàlla dee fekk ñu ci lu rafet loolu mooy li nga xamante ni moom moo jar a ñaan.